jëkkati Garamba kaay kaay kaay sa dëkk laa ñëwoon tey may ñaan ci nawet bii yal na ci yàlla def jàmm saa boo jullee na nga ko ñaan saa boo ñaan na ko ñaan ñaanal nawet bii Sénégal am jàmm waaye buur am jàmm buur yal na am jàmm ana Baye Faly. jërëjëf encore mon kooku mooy daa soxo jërëjëf daa tuddee sama xarit bu waaye woon loolu jërëjëf ci dëkk dëkk dëkk ci ñaanal waal yi dëkk waal yi ñu toppatoo waal yi ñu toppatoo ay waayu waal yi Ahmed Diouf mon ami Ahmed Diouf borom bëgg ram naan ba mu jeex takk takk takk takk Ahmed dama naa la dañ dem temps temps am na ay bëgg démb fi Maria Sine Seydina Thiam Djilan Faye la famille Thioub Serigne Djilan Seydina Thiam jërëjëf Laali Ngom Laay Ngom Laay Ngom jërëjëf ndeysaan karamba nee na waa ji dégg ma sëñ Fallou sëñ Fallou moom it bëggal dinaa ko indi karamba dinaa la ko indi na ko woon sax waaye yow loo ma mën maye mhm. lii mënul jeex mu ngi nii ñun sox gëmuñu alalu àdduna lépp pour Wally Ballago Seck moo jox nga ñëwoon tey Allah ku si jël na jot nañ seen wërsëg liñ jot mhm. loolu mooy seen wërsëg mhm. amaana lii waruma ko fi maye maanaam sama alal la mu lew ma dong. maa ko mhm. liggéey muñ su ma neexee sax sànni ko fii dem sama yoon. dëgg la man la maa ko liggéey. wallaay dëgg la te lew ma ko. dëgg ma ko dorog. Mhm. fenu ma ko sàcc ma ko maa ko ñàkk mu lew ma. ku ma neex laa koy yëkkati may la ko. Mhm. ñun gëmuñu alalu àdduna. dëgg la Fall. Ah, waaw ñun liñ gëm lii. dëgg la liñ mooy na ran bi jub. bu kenn tooñ na Sénégal am jàmm. am jàmm moo mais gëmuñu alalu àdduna. n'est-ce lii ma yor bu ma génne waat lu ëpp lii fi ma lii kay nickel xam ñun gëmuñu alalu àdduna yàgg ngaa génne sama kanam ma gis man xam naa loo wax loo wax barke sëñ Fallou ñun gëmuñu alalu àdduna ñun lii mhm. lañ gëm mhm. sëñ Fallou mhm. ak réew mi am jàmm li des si ñu yoon nekku si mais joxal rendez-vous Wally Seck damay jox rendez-vous gars yi sama gars yi Wally Seck ñu ngi leen jox rendez-vous Vogue. incha allah incha allah na ngeen ko préparé Karamba dina dugg Dakar. Mhm. dina tasaare Dakar. jëngal Wally Seck dina ko waaj Karamba dina ko waaj. Mhm. Mbaye si Ndiaye dina ko waaj Arma Ndiaye ñëpp a ko. Ramdan dinañ ko waaj. barki Serigne Fallou Mbacke Wally. Ah. Mhm. Wally yaa ngi may dégg Wally yaa ngi xol bi sedd na de. Ah, dëgg ah, mais foog ma ñëw nga sama dëkk. foog ma jox la retour fekk la Vogue. Oh, du yomb de Thiel. billaay wallaay. la la roi du. le roi du ballon ballon. Messi. le centre du peuple mais le marabout du peuple. billaay wallaay. ñaar rek mën a ànd le marabout du peuple. le centre du peuple. allah akbar. sëñ Fall ñu dem. mais dem ba sëñ Fall ñu dem. <laughs> bay Fall ja dem ba. waxal waxal waxal it kontaan naa yow kenn du yow maag yéen. kenn du yow. ñu ne yow xool ba géej gi di fay. dëgg neexul billaay wallaay. doom de waaw. il est ok. junior. ok jaajëf. junior.